salaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé te ñu am mbégte di ci dal ki nga xam ne moom mooy Adja Ndeye Fatou Diallo nekk njiital euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy bàjjanu gox yi donc di njiital association de bàjjenu gox du Sénégal euh, ñu am mbégte tey bu baax a baax di ànd ak moom tey ci suñu émission SOS santé ndax moom dugguleet mu ñuy wuy si te saa ñu ko woowee rek dafay am cawarte ci wuy suñu te loolu dañ ko ciy jaajëfal bu baax bu ko defee ñu may ko mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi mbokk auditeur bu Rewmi FM maa ngi di nuyu di leen gërëm di leen sant di kontaan nag ci invitation bii ma waar rajo bi invité mm. di nuyu nag la directrice di nuyu tamit euh, ulay bi nga xamante ne moo tax ma mën a jokkoo ak yéen mm. di gërëm tamit ñi nga xam ne ñooy déglu rajo bi yëpp nag mm-hmm. di sant bu wér mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di am mbégte comme ni ma ko waxee ci euh, séq waxtaan bi tey ak yow parce que bu ñu nee bàjjenu gox ñëpp xam nañu kenn na tableetul defe naa ci biir Sénégal taxawaay bi nga xam ne bàjjenu gox yi am nañ ko donc nga nekk ki nga xam ne yaa leen jiite euh, tey jii nii nga revenir un ci li nga xam ne moom mooy lan moo la motiver tey ba nga songu li nga xam ne moom mooy wàllu bàjjanu gox. waaw question bi kontaan naa ci torop li ma motiver mooy bàjjanu gox bi ñu koy créé xamuñu woon ne dina ñëw ba fii. Mhm. ñu ne rek nañu délégué de yi imaam yi médecin yi gox bu nekk ñu seet ña fa am mbooloo te am baat en 2009 nag ñu formé ci li jëm il a santé de la mère et de l' enfant muy di jëm ci jigéen bu toll ci âge yu jur ba ba muy bàyyi pour mu xam nan lay doxalee jigéen ñi fonk seeni ñàkk fonk seeni consultation prénatale fonk seen dicté lu kër docteur te bu leen la mayee tamit njaboot ñu fonk vaccination yi ndax pour ñu aar seen doom ci li jëm ci feebaru xale yi. Mhm. mais léegi affaire bi nag dafa dem ba nga xam ne ñëpp ñu soxla. dafa am ampleur. ampleur <laughs> presque léegi luy laal ci nit rek soxla noonu. Mhm. ndax VAD yi ñuy def visite à domicile VALT yi ñuy def visite lieu de travail yi communication bi ñuy def ni ñi a sensibilisation bi. Mhm. ba nga xam ne léegi ku bëgg sa wax génn rek danga naan naa dem ci bàjjenu ba. kon ñun ñëpp lañ fi nekkal. pour l' émergence daal lañ fi nekkee. mais lutter pour le développement de la santé tam mooy sunu mbir. ñu gis ne na ngeen jege loolu population yi wax nga ko looloo tax d'ailleurs ñu euh, euh, dénk leen li nga xam ne moom mooy sasu bàjjenu gox parce que bàjjen dafa nekk euh, kaddu gi dafa am bu baax a baax solo parce que bàjjen ñëpp xam nañ taxawaayam ci société. Mm-hmm. africaine société sénégalaise. waa turu bàjjen rek la ñu jël valoriser ko. Mm-hmm. ancien régime bi. ndaxte ku nekk xam na ne sa càmmiñ bu mu seen mer sax ñu ne nañu woo jigéena mhm. xale bu nekk ci kër sax am benn comportement bi ñu ne nanu woo jigéen bi bàjjanam mhm. bu nit di amee doom ñu ne bàjjan bi uuf ko mhm. bu nit amee jëkkër ñu ne bàjjanam a koy ñaanal bu nit duggee néegu góor ñu ne bàjjanam a koy tagg kon dañu valoriser suñu euh, coutume ak tradition fii ci Sénégal moo waral bàjjanu gox gox na gox goxaati lañ ko jële nga nekk nag nit ku ñu wóolu ci gox bi nga dëkk jox la cër sa dit waxit ñu di ko dégg. Mhm. loolu moo waral loolu. am na solo tey ci sa ci sa jëmm bopp euh, Ndeye Fatou Diallo yow lan moo la dugal ci mbirum bàjjenu gox tey ndax da nga daan nekk koo xam ne danga jege nit ñi wala nit ñee la bëgg seen bopp nitu nit ñi exactement naka la laka la demee. sa sa dugg ci mbir mi. waaw léegi sama dugg ci mbir mi mën naa ne sax yàgg na lool. Mhm. ndax bi ma gënee nekk xale dama doon def affaire ay association nekk ay rele da nga yàgg yëngatu daal. ma yàgg yëngu depuis mon enfance ma ëlbatiku nag. Mhm. fi may wax ak yow ni may liggéey nag nekk infirmière. Mhm. bi ma nekk infirmière ma nekk en contact. ak yaay yi ak doom mhm. booba li amagul mhm. xam nga da ngay daal di am amuuru xale ak yaayam mhm. suñu ñëwee ci service bi ma nekk muy vaccination ma leen di ñàkk di waxtaan a ñoom naa na respecté leen seen i ñàkk def leen ni di xool xale yi di def yooyu yëpp ba ñu indi affaire bi nag 2009 fii ma dëkk ci sama gox médecin bi ak de de quartier bi ñu tànn loolee ñu ne kii docteur bi ne fi heure ne mu sonal ñu fëgg indi ay nit ku ne lay for di indi kon kii nañ ko yóbbu jox léegi nag bi ñuy def formation ma leen man maa ngi liggéey ci kër docteur ñu ne ma di ci dara. Mhm. dama rek ba may demit ñu ne amul salaire. Mhm. ñu bare dellu gannaaw ma ne man rus na maa dellu gannaaw. Mhm. ba loolu moo indi lii tey. nga xam ne bu ñu feebaree dañuy waxtaan ak moom fexe mu dem kër docteur yemul rek ci jigéenu wéru. feebar bu fi am. gis nga temps Ebola bi dañoo sensibiliser bu baax. nit ñi di raxas seen loxo yi bu ñu gisee nit ku bees ku fi dëkkul ñu signalé dañuy liggéey ci euh, zéro déchet bi. bokk nañ ci. daanaka ci lépp la ñu bare zéro déchet zéro bidon bi dañuy dugg ci petite enfance mhm. affaire taalibe yi ñu ngi ci ñu ngi ci éducation ñu ngi ci formation ñu ngi ci lu ne mhm. kon loolu sant yàlla rek mhm. waaw ah, mu mel ni kon tey liggéeyu na Gox euh, comme ni nga ko waxee nekk na liggéey boobu da ngay dugg ci gox goxaat yi waaw di dugg ci biir nit ñi te loolu yomb na yombul waaw loolu yomb na yombul day fekk yow sa bopp nga am benn taxawaay ni ngay waxee war nga ni ngay sole ni ngay duggee ci nit ñi te li ngay wax da koy gëm pour nit ñi boo waxee ñoom ñu gëm la ngay wax mhm. waaw mais nag na nañu am nañu ay formation surtout ci santé de la mère et de l'enfant ministère de la santé formé nañu mhm. waaw barki dem petite enfance mhm. wax naa ñun ministère de la famille waaw état civil yi bu xale juddoo rek ñu yóbbu ko mu dem inscrit ci registre mhm. forma euh, ministère bi yore décentralisation daf ñuy woo formation mhm. kon ñun lépp lu ñu am formation rek boo ñu bàyyi ñu liggéey ko mhm. lu jëm ci euh, parce que yow yaa ngi wax ne infirmière mm, laa woon nga woon euh, ci jamono yooyu nga mm. boole ko ñëpp xam nañ liggéey infirmière ni mu mel dafa metti tout temps yaa ngi nekk si le terrain di liggéey mm-hmm. Mm-hmm. nga boole ko tey ak baj est-ce que amuloo lu mu la yàqal ci waaw sama côté demoon naa ba nga xam ne sama kilifa yi dañ nekk kanam rek la topp. Mhm. amoon naa ci tuuti ay rëq-rëq mais macha allah tubaarkalla alhamdulilah ndax booba dama xam na ne rek kii dem di wuti ki feebar ak kii faj ñoo bokk ay mbir. Mhm. moo tax météo ma wax. nga wari jigéen indi ko ne ko dama bëgg nga respecté sa consultation prénatale pour bés bu la yàlla di may doom nga mu mu mucc ayib. Mhm. ak fonkal sa ñàkk ndax nga xees tétanos yow ak sa doom ñàkkal sa doom ndax mu xëy feebar kon kii def ISC. E, di sensibiliser nit ki ñëw ci hôpital ak ciy liggéey ñoo bokk àtte. dëgg la waaw. Mhm. mais mujj gi ma mhm. daal. nga amoon ci ay rëq-rëq. quand même amoon naa ci ay rëq-rëq moom. Mhm. ndax te terewul dama daan liggéey dama daan liggéey heure wàcc heure. soo paree dugg ci terrain bi di xëcc di indi. Mhm. wax dëgg yàlla. Euh, ci sa côté vie de famille. Mhm. yàqalu la woon dara. déedéet ndax alhamdulilah xam nga ñun bu njëkk dañuy teel a am borom kër. Mhm. waaw presque sama doom yi sax dañ may dimbale ci yenn yi ba ku ñëw di ma seet sax dañu lay laaj lan la. orienté la. waaw. suma caat bi léegi am na jabar bien que je me suis marié tôt. Uh-huh. waaw sama yeneen doom yi nekkuñu fi. donc yow bi ci dugg fekk na say doom. ñu ne ñu responsable ba côté doo ci am jafe-jafe vraiment. Mm. dama ciy dugg 2009 fekk na boobu sax sama caat bi mi ngi mm. liggéey. Mm. Euh, bi ñuy njëkk a wax affaire bàjjenu gox yi ci euh, euh, jamono yi premier régime yaa ngi koy wax. Mm-hmm. parce que maître Abdoulaye Wade moom moo impulsé projet boobu. Mm-hmm. ci jamono yooyu itamit dëkk bi xawoon nekk ci ay mhm. yenn jafe-jafe projet yi bari woon et tout mhm. te dañ nekk ci réew moo xam ne projet bu taxaw rek dañ naan ah lii de affaire politique la mhm. tey ji est-ce côté boobu amu leen ci woon ay jafe-jafe tamit euh, sunu jafe-jafe mooy dañu xamul woon suñu liggéey. Mhm. waaw loolu tax sax ñu am tuuti léthargie. Mhm. mais bi ñu demee ba ñu nag xam suñu liggéey ñi ngi ñëw envers ñun. Mhm. te xam nga mënoo ne bërëg yow ngay wuti. day mel na dara la. ñu teye rek di liggéey di wut ay formation rek. ci suñu gox yeeg goxaat yi. ndax dañu structuré. 557 communes yëpp ku ne am nga président. district yëpp am na président département yi am président région yi am président. bi ñu booloon nag ñoo ma jiital président national. macha ko jiite. Mhm. du dëgg mhm. loolu la te région de Dakar onze districts moo fi am jam ñaajo la commencé bu fii nga toog mhm. euh, naka lay demee seen ndaje yi euh, par mois da ngeen di daje par semaine par naka lay demee exactement léegi dañu fexe ak euh, nouvelle technologie bi am groupe groupe whatsapp waaw nga xam ne ci la ñuy joxe information yi bu ñu waree daje ci la ñu ci yenn saa yi dañ ciy def sax ay fen ci waaw mel na ñoo ngi toog <laughs> genre réunion waaw ku nekk difficulté yi nga am tamit waaye man def naa tuuru Sénégal. Mm-hmm. tous les districts dugal naa fa sama tànk pour xam la situation. Mhm. ndax weer gis bokku gis bokku ci euh, parce que li nga wax tam dafa am solo district yi. Mhm. gox goxaat yi. Euh, dafa nekk ay endroit yoo xam dafay metti. metti sore bu a baax ba Kédougou. ba Saraya ba Salimata fu nekk sama tànk la j'ai eu la man dem naa fa ay reportage ay euh, Saraya ak ay yeneen ak yeneen ba ci Matam sax ay Kanel ak yeneen ak yeneen Bantakook yooyu dëkk yoo xamante ne danga naan lii ndekk am na Sénégal yooyu yëpp dem naa fa mhm. Euh, jëm euh, ci gox yooyu dañuy gis ne vraiment seen matuwaay daal du yemb. waaw pour wàllum paj mi. waaw du yemb et dañuy soxla ku wax ak ñoom mais macha allah nag bàjjane fa nekk bëgg nañ dañuy def. Mhm. léegi tubaarkàlla booy seet sax ñoo ñu gën a farlu ñi ci àll bi. Mhm. ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ay kon ñun comme ñu ñoo jël. waat ne dañuy liggéey pour dimbale sunu moromu jigéen ñi ak sunu doom moo tax nee naa leen nañuy wax rek mhm. communication processus la mhm. te sensibilisation moo yore lu mën a doon ci àddina mhm. te li ñuy def prévention la te prévention moo gën faj foo waxee nit ki ci liy waaj dikk dina xam matukaay yi muy jël ñun daal ci loolu la ñu nekk xam nañ ne am na coono ndax lépp yembul mais daal ñun li ñu war ñu ngi koy def waaw wax dëgg yàlla seen déplacement yooyu ngeen di def ci biir dëkk bi. Mhm. loolu aussi dafa laaj ay moyens. waaw te xam nañ ne bàjjenu gox yi ci benn vola la ñuy la dox. Mhm. te est ce loolu tam dina yomb ci yéen. yombul woon waaye nag ak euh, sunu fërëmu barke démb bi. monsieur le président son excellence. wax mhm. dëgg yàlla xam na li ñuy daj. xam na ne àll bi seen diggante centre yi dafa sore ñi ay moto la ñuy dugg ñu ay charrette mu ne dina fexe ba ñu am ay oto di ci dugg waaw bu ñu amee lu ñuy liggéey dugg ci du ñëwaatee teg est ñu xamee yéen liggéey gu am solo bi ngeen am ci dëkk bi tey. Hmm. kenn gënu leen yelloo mbir yooyu noonu. Hmm. est-ce que tey yéexul mbir parce que dégg naa ko sax mu ne dinañ leen jox ay hmm. ay ay nampaay daal ay neexal ak yooyu. mais loolu yëpp je pense que ni euh, yéex na daal. waaw yéex na. parce que li ko waral mooy. moom bu joxee ordre parfois nit ñi duñ ko exécuter duñ ko gaaw a def. mais wax dëgg yàlla depuis 2017. bi ñuy am ak moom le 11 11 mai 2017 fële ca Grand Théâtre mhm. waxoon naa ñun lu mel noonu xam naa nag dafa xool ne amul suivi moo waral mu organiser waat forum pour nag exécuter nan nañu ko def mhm. waaw est-ce loolu dina yemb est que duñ def comme nañ defoon déedéet bii yoon yaakaaruma ko mhm. ndax fotti ndab fotti ci ndab moom xalaatuma ko waaw te duñ leen ci bàyyi sax ndax dañu def réunion wax sunu doléance yëpp def mémorandum teg ko ci loxoom wax ko na ko la nga ñu waxoon ba tey gisaguñ ko bi mu ñëwee gis nga ci lool rek la wax. Mhm. moo tax ñu am ci yaakaar daal. ah parce que suñu wax motivation. ni ñu koy doog wax dëgg yàlla. parce que instruire na ki nga ne mooy ministre de la santé. ak euh, Mansour bu développement bu Mansour Faye. ak yooyu pour ñu vraiment taxaw ci ci mbir mi. waaw enrôlé nañu tamit ndax bu njëkk bu ñuy faju. ñooy mhm. demal suñu bopp. du dëgg ci mutuelle yi. Mhm. waaw te ñun dañuy liggéey ci mutuelle yi. ndax dañuy nit ñi. Mhm. di leen wax ne juróom-ñaar téeméer ngay natt liñ ci des état bi ba xam ne te gannaaw yàlla liñ ci am ñu la. kon na ñun daal li ñuy liggéey xam nañ ko te ñu ngi liggéey. Mm-hmm. waaw yàlla na moo tax ñuy liggéey pour xeex leetal yaay ak doom mm-hmm. éducation xale waaw lutte contre la drogue te ministère de l'intérieur dugal nañu ci mm-hmm. waaw dañuy dem ay formation yëpp ndax ñoo jur doom ñoo mën a wax ak ñoom du dëgg la waaw jigéen place am ci dëkk dafa rëy développement mënul am saa jigéen jigéen moo jiitu moo mujj ci développement te yaay la ñu te teere nanu ñoo jur njaboot gi kon daal ñun suñu liggéey dañuy def ngir yàlla même bu fay amul woon sax nañ ci ba pare fukki at duñ ci dellu gannaaw. Mm-hmm. waaw euh, parce que fay amu ci woon boobu ba léegi yéen a ngi ci di def liggéey gu am solo donc tey lii daf leen di fekk si rek te chance la mérite la aussi duñ ne chance la mérite la tal ko mm-hmm. ñëpp barkeeloo ko toutes les bàjjenu gox mm-hmm. du Sénégal waaw euh, dañu gis ne tey euh, Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne initiative bu baax day am sax mais après wàllu politique day ñëw yàq ko day ñëw maanaam xam nga gaa yi ni ñu mel. Mm-hmm. dugal ci ay wàllu politique ak yooyu est-ce que tey yéen gars yi sonnaluñ leen ci ci côté boobu noonu. waaw xam nga ñun dañoo am sunu fayda. Mm-hmm. waaw dund ko nëbb nag ndax comme décret présidentiel moo ñu far. Mm-hmm. président bi fi nekk dañu ànd ak yow. waaw waaw bien que fesul nag ñoom moom sunu bopp nous sommes des citoyens. mais ki ñu amal njariñ waa nga xamante ne ne mosuñu am ay billet Màkka mi ngi ñu koy may. ak ay billet Rome boole nañ ko ci ndax nu sam lay kon kooku buy xeex da koy sotle ndax li mu la defal kenn mësula ko defal mhm. moom mii bi mu fi ñëwee ah, ah. la féete day xañe waaw bi mu fi ñëwee ci la ñu xanaa ci la ñu xam valeur u bàjjen mësu mhm. ñoo toog ak benn président moom lañ mës a toogal mhm. ci nguuram lañ toog ay ministre kenn toogu leen woon ak maître Wade mësuñu toog ak moom 2009 ba 2012. te pourtant moom moo leen. moo ko créé. Mm. mosunoo toog sax benn ministre ci temps yooyu. dëgg yàlla kon xam nga ki nga xam ne daf laa ubbil ay bët. na la ñëwal di jël ministre yi di leen jox ordre jàppale leen nii nii bien que def nañ ko ñii defuñu ko da nga naan kii faala na ma. Mm. ay ëlbatiku en 2017 2018 yëpp jox nañu ay biir ñu jox ko présidente région yi ñu dem Màkka. xam nga loolu tam ndimbal la naka am nañ amuñu passement mm-hmm. waaw looloo tax mm-hmm. kooku buy xeexe dañ koy sotle dañ ko nëbb kenn mm-hmm. ndax moo ñu faale dëgg la mais fesuñu ci leen woowuñu média waxuñu dara ñu jàpp suñu njaamu di liggéey suñu liggéey parce que huit liggéey ngeen te huit mille ëpp na ah. man mi maa xam ñaata la ndax fii ñu toog suñu district am nañ deux cent déjà boo jëlee deux cent boo ko multiplié par onze lu mu lay jox Dakar am na deux mille et te Thiès ëpp Dakar. bëri na kon ëpp na 8000. ëpp na dañoo à peu près ñëw mais man mii di président xam naa ne ëpp nañ ko. est-ce que ragalu leen tey parce que xam nga nit ñi moom fu ñu dégg ay koppar. commencé commencé est-ce que tamit du ñëw ñenn ñi ñëw. Hmm. fekk ne sax amuñu benn euh, motivation personnelle ci mbir mi waaye koppar yiñ ci dégg moo tax ñu bëgg a ñëw. xam nga bi may def sama tournée nationale dama dugg ci district yi ne leen na ngeen ma defal bànjee ni nekk am activité. ak yu nekkul en activité ngeen defal ma ko croix xam nga piège la def naa ko six mois avant kuy liggéey xam naa ku liggéeyul xam naa mhm. ku nekk sur le terrain xam naa te sa président district xam na ko sa présidente région xam na ko mhm. am na ci ñu amul formation mais dañu am amour bi mhm. xam nga ki bëgg moo gën ci nga dugal ba pare te liggéeyul ma ne ñooñu nan leen former remplacer leen ñi du dëkk loolu la mais ñun xam nañ koy liggéey ku liggéeyul de te ñi liggéey ko moom ak ñi def formation ndax ku def formation am nga diplôme wala nga a badge kon affaire boobu mënul am benn problème. Mhm. waaw mais quand même li nga woote bi tubaarkaal surtout que président daf ko wax ñëpp dégg ko bu ko defee nit ñi dinañ tàmmali naan waaw bàjjanu gox yi sama portable dafa fo dafa kii fi mu toll nii dafa fees dell mais aussi ku wax ak yow da koy déglu mm-hmm. xam fi mu jëm mm-hmm. duñu jaan kenn ndax loolu tam sant yàlla la mm-hmm. boo nekkee ci benn mbir sax ba ñu am ca yaakaar ba nit ñi di ko bëgg sant la te suñu sañoon jigéen ñoom nekk bàjjen ndax bu ñëpp nekkee bàjjen sensibilisation bi ak IEC bi day yomb feebar yi wàññeeku ku nekk xale yi xam fi ñu teg seen ndax ku nekk bu yaree sa waa kër dëkk bi day baax lu dëkk. dëgg la dañ dañuy faral di wax ni ay jigéen moom fu ñu dajee loolu moom ñun dañu koy wax. Hmm. ay jigéen fu ñu dajee rek problème daal am. waaw mais nag yu kenn xamul. jàppal bàyyi. waaw mais nag macha allah ñii xaw ma dañ maa rus ma lan la mais daal wax dëgg yàlla jàmbaar lañu. Hmm. jàmbaar lañu lu ma wax ak ñoom ndax ñun suñu formation discrétion la. Hmm. moo jiitu. ndax mënoo di ànd ak nit di weer feebaram. confidentialité. bi ñuy wax ci médecin yi moo nekk ci ñun. Mm. ndax ci lépp la ñuy dugg kon kenn du génn feebar kenn. Mm-hmm. kenn du wax waxu kenn da ngay ànd ak ni nga yóbbu ko mu am lu mu def sax boo tasee moom doo ko xam. Mm-hmm. te jox nañ ma cër daal ndax man présidente région yi laay waxal yenn saa yi ma bett benn président district waaw présenté wu du dëgg. Mm-hmm. loolu la mais amuñu problème yooyu parce que dañ ko structuré. waaw. te aussi xamal naa leen bés bu ngeen ba gis ci man faay day leen ma wax. nga xam ne dong la. waaw. Mm. bu ngeen gisee loo xam ne bu buñ ko defee mu jëmee ñu kanam wax leen ma waaw man daal noonu laa ànd moom. Mm-hmm. joxuma leen leen amuma lu ma leen defal mais am naa fu ma jëli information jox leen ko. Mm-hmm. waaw fu may demee na leen acca ñu dem waaw. loolu daal laa nekk ak ñoom ñuy waxante dëgg nag. Mhm. waaw tey jii est-ce que comme yow yaay seen relais yaay seen njiit est-ce que am nga facilité pour di parce que sànq wax nga ko toog ngeen ay président mhm. ay ministre mais est-ce que tey am nga facilité pour tey jii bu ngeen amee ay revendication wala nga am loo xamante ne lu taxaw la lu jàmp ngeen mën a dis ak ministre de la santé par exemple. waaw loolu moom amul problème bu ñu groupé woon nii wala man ko ah baa jëndee nan laa bëgg a gis. Mhm. dinaa xam Mm-hmm. waaw dinañ déglu mm-hmm. voilà may fàttali rek mbokk yi yéen ngi déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM te ñu am mbégte ak kontaante di ci dalal Adja Ndeye Fatou Diallo moom nag moom moo jiite bàjjenu gox yi nekk fii ci euh, Sénégal donc njiitu réew mi ci seen forum bi ngeen doon amal. Mm-hmm. Euh, donc mu nekk forum boo xamante ne forum bu am solo la woon et tout bu bu mag forum bi yéen a ngi ci ñaatalum édition ak aussi euh, lan moo tax ngeen jël vraiment initiative di organiser forum yu mel noonu. ñu mën a dugal suñu mémorandum ndax dañuy waxtaan ak bi ak ay éléments ba pare mu laaj ñu lu ñu bëgg ak lu ñu jaaxal ak lu ñu naqadi ak nu ñu gisee buñ ko defee affaire bi dina yokku hmm. booba maa ngi ci base bi xam naa problème mu bàjjëli xam naa tamit li ñu manqué ku nekk ay ñeenti nit hmm. ñu toog waxtaan hmm. defoon nañ ko 2017 defoon nañ ko 2019 waaw di gërëm bàjjëli gis nga keroog seen mobilisation ñi dugg sax ñi ci bitee la. ñoom saa ñu mobiliser moom. ñu yëg ne mobiliser côté boobu sant yàlla rek la. Mm. ndax du affaire moyen mais affaire bëgg la te ñu bare tey bëggoon nañoo am loolu te ñu ko tey yore xaalis. Mm-hmm. kon ñu ngi koy gërëmee yàlla. Mm-hmm. di gërëm bàjj di ko fi. Mm-hmm. au niveau national au niveau régional au niveau départemental. ak ñi ci commune ñoom ñëpp macha allah tabaarkalla mhm. li ñuy def daal bëgg nañ ko lii ñëw daal yàlla nañ ko tal fekk ko mhm. ndax ñun yàlla rek tax ñuy def mhm. dëgg yàlla njiitu réew mi nee na day xaar conclusion yi nga xam ne moo nar a tukkee ci forum bi et tout pour vraiment euh, peut-être mu gën leen mën a jàppale ak ak yooyu ci li nga xam ne yéen a koy def comme liggéey waaw loolu incha allah noonu la conclusion bi koy jeex na ndax man ma jële parole damaa wax ci turu baa jën yi du dëgg wax nañ li ñuy liggéey wax nañu problème yi am wax nañ li ñu bëgg it mhm. te moom it bu mu ñëwee loolu la dellu si kon daal ñoo ngi ñaan yàlla indi jàpp te ñëpp murloo ko te yàlla may ñu kàttan bu ñu mën di dimbalee sumu doom yi ak suñu sët yi daal mhm. Mm. am na solo bu weesoo li nga xam ne moom mooy daje bi ngeen daje ak président de la république ci forum bi bi weesu am na aussi benn formation bu ngeen am yàggul ak waa direction donc euh, de la santé de de la mère et de l'enfant DSME donc yéen yéen jiitu journalistes yi parce que taskatu xibaar e. si amoon nañ aussi donc yéen yéen a jiitu mm. ci loolu aussi wàllu planification familiale ñu gis ne taxawaay bu am solo ngeen ci am loolu dañ koy yàgg def parce que naa la ay jigéen ñi ndax nga yóbbu nit du moment bi ngay yóbbu nit di ko orienté mhm. pour mu def consultation prénatale rek ci ngay xam ndax war na ko mën a defal ISP e. mhm. pour mu def planification situation familiale da ci joué mhm. doom yi bare da ci joué njur mu jegeñ ma da ciy joué kon waxuñu ko bàyyi jur mais espacement de naissance la ci wax ñu ngi ciy liggéey lu am solo ñoo ngi ci waxtaan ak xale yu jigéen yi waaw ba ci xale jigéen sax dañuy waxtaan ak ñoom parce que boo gisee tey jur jur rey ah voilà du fiyee ko gën wax rek te prison bi fees na mhm. te ñun ay yaay lanu ah yooyu yëpp maa day taal te da lay àtte comme rek ku rey nit mhm. loolu yëpp dañ ciy dox mhm. waaw kon waa DSR suñu partenaire la mhm. ndax en 2009 njëkk a formé la santé de la mère et de l' enfant et de l' adolescent mhm. waaw ñooñu ñu nag moom luñ toog ñaari weer te amuñu mhm. formation planification noonu lutte contre les maladies noonu ndax gis maladie chronique yi tension yeeg yooyu yëpp am na bàjjen xam ne dugg di jël tension jàngal nañ leen limite bi ak foo xam ne bu ko nit ki amee war naa mën a dem hôpital. Mhm. liñ liggéey bari na de Adja. ñu ngi ci école yi. Euh, parce <laughs> bi doyul. doyul mais yéen bu ngeen di mhm. yi gën di gën tax day yomb am na ñoo xam dañuy toog seen kër. metti leen xamuñu ne da war a dem ci poste bi la gën a jege. Mhm. boo demee ci poste bi poste bi orienté la centre centre la hôpital. mais da ngay seet nga jógee sa kër dem hôpital amuloo këy bu lay référé. Mm-hmm. ñàkk xam la. nga ne dañ maa négligé fekk dafa am foo war a jaar. Mm-hmm. fii nga jógee nii centre de poste de santé ñu mm-hmm. de santé hôpital këyit yooyu mooy tax sa accès yomb yooyu yëpp ñun bàjjen yi ñoo koy wax ak ñoom. waaw am na solo loolu nag. am na solo askan wi xam ko parce que dañ nekk ci euh, dëkk boo xamante ne peut-être ñi nga xam ne. jàng nañu yenn mbir yi. waaw bëriwul ignorance bi bëri na. Mhm. problème yëpp ignorance la. Mhm. nit ki bu xamul lu ko neex lay doxee. kon ñu ñoo war a xamee moo tax ñu ne il faut informer éduquer waaw communiquer. Mhm. lépp communication la. na fekk nag yow na nga jàng moo tax ñun dañuy soxla ku ñu former ndax booy dem ci population da war a am benn formation boo xam ne ca ngay duñu faj nag mm-hmm. duñu joxe garab waaye sañ nañ ne kaa ñu dem kër docteur def leen lii def lii pour xeex lii mm-hmm. mooy IST planification familiale bi dañ ciy des parce que wàllu arnef lu ci bëri góor ñi ñooy ñoom ñooy réticent ñoom ñooy bañ mm-hmm. peut-être seen jabar yeeg yooyu di am ay def ay arnef ak yooyu tey yan jafe-jafe ngeen di am ci côté bu surtout côté góor ñi waaw boobu côté amoon nañ ko waaye léegi ñun danoo changé méthode au lieu ngay wax jigéen ki da ngay dem ci couple bi tegal leen argument yu leer xamal leen ne waxuñu nit ki bu mu jóg waaye au moins mu nàmpal juróom benn weer leen kese te lu bon bon ay doomu magante ñaari at dina sakkanal sa poos dina tax ñu wér dina tax sa jabar mun a defaru ndax kër bu fekkente ne weer bu nekk at bu nekk nit ki yore xale ëmb jëkkër bi dina jënd ñaari ordonnance mhm. ordonnance su xale bi ak bu yaayam bu amee yeneen doom yu war a jànge est-ce que éducation bi du dina sooxe. dina sooxe. Mm-hmm. foofu rek lañ koy jaar ba góor ñi léegi macha allah am na ñoo xam ne sax ñoo yóbbu seen i jabar. Mm-hmm. te dañ naan leen amuñu lu ñuy wax boo demee bi la ci neex rek ki ko jàng mën ko dina la orienté ci loolu mhm. du dëgg mhm. waaw ñun yàlla ak ñu dimbali ci côté boobu bañ nañ ko ba léegi guddi la ñuy dox mhm. <laughs> am na solo guddi moom daa ànd ak li ñu naan sutura ba pare da ngay fekk borom kër gi waxtaan kaf ba pare wax ko li la tax a jóg tegal ko nag li nga xam ne moo la tax a jóg ndax ba tey ignorance la li nga wax ndax bu ñu nee planification dañ naan bul jurati déedéet planification day faj sax ñu tase nañu ay couple yu sëy amuñu takkandeer ñu dem yóbbu leen kër docteur ñu commencé planification bi ak ñoom seen dem nañu tey ba am seen. Mm. waaw waaw man vendredi bale passé tuddee nañ ma doom. macha allah douze ans sëy na ko ak borom këram. Mm-hmm. amul takkandeer man na tudde doom bi fii à Rufisque. Mm-hmm. du rek yooyu yëpp sant yàlla. sant yàlla noonu. Mm-hmm. loolu la planification paja nga ci. te loo jàngul daal dama ci ki ko jàng. mooy dëgg ñun nag këcc nit ñu yóbbu leen kër docteur mooy sunu rôle. waaw la ñuy def ak ñoom duñ ko toppatoo. xëy na nag ni kii ne aw ma lu ma jëndee garab ñu seet ñun de nootur mm-hmm. ñu koy defee ci suñu sago mm-hmm. du dëgg daal ay mère de famille lañu du dëgg mm-hmm. te volet social bi moo gën a kii ci suñu côté ndax ñu bari dañuy bañ ñu dem kër docteur na dañ naan du ma fay waaw te léegi xam nga ne xale yi kenn fayatul ñàkk garab ga bu fa nekk ñu jox la ko yooyu xam rek. mooy waral yenn ñun nag loolu la leeral ci bopp sénégalais yi. Mhm. xam am na lu bëri loo xam ne waral na ko. dinañ ci ñëw ci mm. kanam surtout ci côté faux médicament loolu dinañ ci dinañ ci ñëw. Mm. Euh, mais dañuy des ci planification familiale parce que da nga am sànq lu am solo loo wax. Mm-hmm. nga wax affaire adolescent yi nga xam ne mm-hmm. nekkaguñu ci néegu sëy. Mm-hmm. mais ñooñu dañ leen di sensibiliser. ci wàllub euh, éducation sexuelle. ci wàllu planification gi yooyu. dëkk dafa bindoon yoo xamante ni mhm. yenn saa yi suñ yenn valeur yeeg yooyu moo tax yenn yi euh, nit ñi dañ koy bañ a def ak yooyu te pourtant loolu mu ngi fi bu ñu ko bàyyiwul xel waaw nit ñi dañuy continuer adolescent yi dañuy continuer mhm. nekk ci lu leen neex mais mhm. baax nañu dugal leen ci loolu man toujours dama koy wax naan waroon nañu dugal éducation sexuelle waaw comme ni ñuy dugalee xam nga ku nekk xam na ne ku jàng rek dem ci kaw dañ la daa da ngeen laan wax ñu ngi toggee yëpp sax économie mm-hmm. waaw moom nañ ci dugal éducation sexuelle mm-hmm. dina changer comportement dina xam xale bu jigéen fi muy teg tànkam mm-hmm. loolu yenn saa yenn tabu yi ak rusa wax la man damay wax man man damay dajale xale jigéen damay waxtaan ak ñoom ne leen bu leen ma rus lu ngeen ma bëgg a laaj laaj ma dañ may wax ma di leen wax parce que il faut ñu préparer leen ëllëg ñooy doon dooleem bi waaw te ñu bare léegi muus nañu parce que xale yi léegi dañuy laaj de. muus nañu parce que internet baa ngi fi. loolu ah muus nag man gis naa changement bu bare xale yu jigéen ñi mhm. macha allah. Mhm. waaw te loolu dafa baax ci réew daal. Mhm. na xam nga ne jur doom xoj ko mu dee wala dara wala ay avortement provoqué yooyu ah clandestin yooyu yëpp baaxul. di nga lor sa bopp di nga yàq sa bopp ëllëg boo bëggee doon doo ko am boo amul chance ñu tëj la kaso. nga doxe fa ah, mu bàyyi la trace boo xam ne da lay topp àddina yàqu sa àddina hmm. waaw avortement yooyu sax am na tam beneen mbir moo xam ne mooy avortement médicalisé waaw boobu boobu moom wax dëgg dañ ko war a voté nag juriste yi di ci wax ñu ciy wax ñun te li mooy seen parce que loolu quand yàgg na boobu ba léegi AJS formé nañ ci loolu yëpp hmm. waaw xam naa daal kii moo gudd rek waaye dina mës a nekk hmm. ndax xam nga loolu du waa ay wax rek il faut procureur am ca wàllu docteurs yi spécialisé. parce que tamit euh, nañu waxante dëgg mais dafa sensible. dafa sensible dafa sensible parce que tey. lu ne la ñu mbubboo. loolu la ñu mbubboo. dañ koy xarito wala ñu mbokkoo ko te loolu taxu leen a moo tax affaire bi yéex. Mhm. mais yaakaar naa ne daal. il faut ñu encadré ko daal il faut na tëb fee ne dañ maa violé wala. fekk waaw fekk il faut enquête yu leer nañ ay mhm. preuve palpable. te lii ma la wax rek il faut ay docteur qualifié. Mhm. ak sage-femme ak juriste. du doon lu yomb de. yombul ba ne lii war naa mën a nekk. Mm. dat ba it ba nga xam ne ne doolor kenn daf ciy mm-hmm. du dëkk. waaw ndax am na foo xam ne ne ci grossesse boo fa tolloo loolu presque nit la mhm. yooyu yëpp moo tax affaire bi daal mu yombul mais am naa ci yaakaar am na yaakaar waaw man am naa ci yaakaar nii ñu voté viol yeeg yooyu dinañ dem ba voté ko te yàlla na ko yàlla def mhm. ndax daf ñuy dimbale tamit du dëgg am na solo waaw parce que ku ñu violé wala inceste ak yu demee noonu loo xam day yàq famille mhm. ñoom loolu rek la ko juriste ci duggee wax dëgg yàlla waa AGS googi formé nañu comme para juriste bàjjen yu bare bare bare leen di gërëm di leen sant wax ñoom tam ay jàmbaar lañ mm. euh, li nga xam ne moom moo jëm ba tey ci euh, wàllub euh, surtout Euh, ci viol bi nga doon wax sànq mm. mu nekk fam volet bu important mm. euh, dañ ko war a promulguer mu nekk loo xam ne gaawal nañ ko bu baax a baax mm. taxal nañ ko daal wane nañ ni vraiment fulaal nañ ko waaw euh, fulaal nañ ko te lu am fula la sax nag tamit jox nañ ko fula parce que boo seetee temps yi bu fekkoon dañ lay violé bala mm-hmm. mais viol ba pare rey loolu il faut ñu criminaliser mm-hmm. c'est normal ñëpp ci d'accord ñëpp ci kontaan mm-hmm. parce que boo seetee depuis deux mille dix-huit ak léegi li day ci jigéen dafa bari li ñu violé bari na te jigéen amul doole mm-hmm. te jigéen bu ñu laal rek laal man la waaw ndax ñun ay jigéen nañ il faut ñu xeex loolu kon ñoo ngi gërëm député yi ko voté di gërëm tam président de la république buy nar a promulguer loolu loolu am na solo trop euh, comme loi yëpp foog mu nekk loo xam day am gis nañu tey ay mal ay bandeek ay mm-hmm. malfaiteur defkatu yu bon yoon dañuy jàpp ay jigéen mm-hmm. violé leen ñooñu ay lâche lañu mm-hmm. mais am na aussi ci beneen côté bi jigéen yoo xamante ne dinañ dem def lu leen neex ñëw ne dañ ma violé wala ñu jot seen copain ne ma violé yu demee noonu ñu jàpp nit ki tam pamti pamti ko dem tëj yóbbu yooyu yëpp nag moo tax ma ne la dafa laaj enquête bu leer daañ te nit ki ñun dénonciation boo koy def da am preuve kon ñi nga xamante ne ne ñooy def enquête ak ñi nga xamante ne ñooy dénoncer ñu teey ndax tëb tamit génn turu nit wax ci loo xam ne leeru la rafetul mm-hmm. ñu am ay preuve palpable di vérifier gynécologue yi xam nga ñoo ko mën a def mm-hmm. ñooñu moom lu la ci wax rek am na mm-hmm. ndax lu passé sax mënuñu ko vérifier lu dëkk ku am doom buñ ko xoolee dañ koy xam ku ñu violé dañ koy xam seen liggéey la ñëpp rek jël seen matukaay rek taxaw ci duñ ci taxawee affaire bi dina ragaloo ñu bari. dina ñu dellu gannaaw waaw mu ngi mel ni kon wàllum aussi peine de mort bi. mooy li ma ñu ko bëgg andi. ku rey ñu mais euh, droit de l'homme yooyu mais na waar. doy na yàgg bawul dara. Mm. waaye doy na waar. doy na waar parce que nit rey nit noonu. Ah. ci ci euh, fourage comme ça. nii ñàkk fayda. Mm. waaw nga ëlbati ko di ko xool ni mënoo ca dara mm. neexul de. te léegi dafa bëri euh, askan wi dafa dem ba violent tey askan bi bëri na si ñoo xam ne vraiment danga naan des fois est-ce que xaftanuñ leen parce que dañu gis ay mbir yoo xam ne dafay doy waar tey yéen bàjjanu gox yi est-ce ngi euh, kii ci yooyu daal di wax ñi yooyu hmm. ndax lu ci bare bokk nañ ci programme lutte contre la drogue hmm. ministère de l'intérieur dugal nañ ci ñu ngi ñuy defal formation toujours pour bu ñu gisee sax su fi ñu dëkk xale boo xam ne comportement changé na ñu wax ak waajuram yóbbu ko ci centre bi ci Fann pour ñu détoxiquer ko. Mhm. xam nga kon ñun li ma la li ñuy liggéey mënuma koo lim fii. Mhm. bëri na dans la discrétion ba tey. Mhm. ba am nañ ci ay résultats yu bari. ñuy gërëm foofu tamit général Diop. moo ñu dugal ci programme boobu. toutes les bàjjam defal ñu formation ne ku ngeen gis. mu am changement de comportement wala mu def lu mu mës a def sax waxtaan leen ak euh, parents am indi leen ñu ko fii docteur Tine moo dirigé euh, maladie mentale dafay bu ñëwee ñoom seen liggéey am na ñun koy kii dañu xam lu mu daan jëfandikoo ci ni koy questionné kaw parce bi tamit bëri na ay lu muy def ci loolu ah, ko daan gis mun a tekk ba nga gis ko mu mel ne fitti bu am na lu ci am hmm. dañ koy nangu ndax ñun parents yi ñoo naan dañ koy liggéey nangam fekk dafa laal lu mu waru talaal hmm. yooyu yëpp ñun ni dañ ciy liggéey hmm. waaw doom ak yaay dafa jege am nga sa doom lu la ca wax rek du la neex. Mhm. waaye lépp ci sutura la ak waxtaan rek. Mhm. waaw. wàllu faux médicament parce que sànq ñuy wax ignorance am na lu bëri loo xam ne dana ko andi ci safaan. loolu liggéey nañ ci. Euh, de la rue na benn colonel ci. Mhm. daaw jéeg ñoo nekkoon ci waaw. di waxtaan ak nit ñi ba léegi tamit am na jaaykat yi ni daa romb gisatoo ko. waaw foofu dañuy ne maam lu ñu leer dénoncé la amuñ ci dara lu ñu rus. ndax rey la loolu moo criminalisation bi dañ ko war a criminaliser mm. parce que garab goo xamoo jàngoo ko xamoo principe actif yi xamoo lenn xamoo efe secondaire yi nu muy def nga jox ko nit mu naan ko yaa ko rey mm. du ko def waaw mais nit ñi tamit parce que média chaque jour ñu ngi wax di yuuxu médicament mais nit ñi duñu di dem bi mm. yomb bi rek ko duggee xam nga Sénégal dafa bëgg moins cher mm-hmm. mais léegi nag ñi ngi kii ndax ñoo ngi dugg di wax ak ñoom naa leen feebar yi ngeen di gis yëpp garab yi ngeen di jëlu ko indi xam nga noonu lañ leen mën a wax mhm. waaw ragal tuuti te it ñoo ngi renforcer sensibilisation dëgg yàlla. Mhm. waaw koy am na am na solo mhm. donc euh, Adja Ndeye Fatou Diallo li des ci waxtaan bi sax bariwul. mais peut-être rek pour ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy seen perspective. tey jii yéen bàjjenu gox yi euh, vraiment lan ngeen. bëgg tey ji parce que motivation yi baax na mais yéen vous méritez beaucoup plus que ça. tey jii euh, vraiment nga wax li nga xam ne ça vous tient à cœur daal. ñun daal li ñu bëgg bëgg nañu sunu association dem ba nekk ONG. Mhm. ñu demal sunu bopp di tàllal sunu loxo partenaires yi. am na ak bailleurs yi. loolu tamit yéen da war a ut ay seen partenaires. waaw au niveau national et international parce que mhm. danoo bare. Mhm. te li ñuy liggéey dafa bare. kon dañuy tàllal loxo képp ku am partenaire ñoo ngi sa sa kii sax sa directeur euh, Badji. ñu koy tàllal loxo. ndax gis nañ lu baax la muy def. waaw ku dugg ci dëkk bi programme boo teg ñu ànd ak yow def ko ndax lépp sensibilisation la ak communication te yàlla may nañu ko mhm. waaw mhm. parce que loolu quand même c'est important partenaires yi mhm. loolu mooy tax ngeen mën a yéen tam mën a dérouler seen yi loolu la xam nga mais mënuñu toog rek ñun am partenaire il faut ñu am comme kalaasu mbañi gi ñu doxal ñu ko waaw ndax tam loxo ci la relation ci la te génn nu amuñu ay relation internationale kon képp bonne volonté bu nekk Sénégal te seen ni ñu li ñuy liggéey foo ko teg fu nekk war naa mën a jur leneen ku ne gis ci sa bopp rek taala nan la sunu loxo mhm. waaw euh, euh, gis nañ ne tey léegi feebar yi bari na mhm. yi ay insuffisance rénale mhm. cancer ak yeneen ak yeneen yoo xam ne jabet yeeg yooyu day sonal famille loo am mu yóbbu ko yooyu yëpp nag xam nga lan la prévention bul def lii bul def lii bul def lii pour xeex feebar bi jeex na te bàjjeni loolu la ñuy liggéey ku leen ci dimbale ñu dem. Mhm. waaw parce que côté alimentation bi tamit. mooy li wax lu doy waar la. lu xorom bu bare diwlin bu bare. Mhm. ceeb bu bare loolu kay boo gisee nit ñi ñu bare léegi bëgg tunu sax loolu lu ko docteur teg rek ñun bu ñu demee sensibiliser. Mhm. parce que hypertension li koy joxe dañ la koy wax. soo demee moom ngay wax ak population moytu leen lii moytu lii moytu lii mooy visite à domicile yi ma la waxoon ak mobilisation sociale ak poserie mm-hmm. ñun noonu ñu génne suñu information mm-hmm. waaw loolu am na solo mm. parce que alimentation yi moom boo demee ci xeweeg yooyu gis nañ ne de plus en plus ñi ñee ngi wàññi mais comme si ba tey am na ñu xaw a ñu ëppal lool nag loolu la bouillon yi waaw bouillon yi moom <laughs> boobu moom c'est autre chose parce que chaque jour am bu génn am bu génn waaw man dem <laughs> jigéen ñi ba tey musuñ ci lu ma amoon lu ma lu nekk am dogal dañuy dellu ci xet ak géej ak yéet ak tuufa ak bisaab waaw loolu yoo xam ne doonee xale mais nag àddina buy dox moom da ngay gis lu nekk rek lu dëkk. parce que dañ léegi xaw ma jigéen dañ ñuy tooñ naan jigéen dañoo mën a togg moo tax <laughs> ko. waaw dañ koo tombé rek xam nga yéen moom ngeen tombé mais ñun ñu tombé ak géej ak yooyu daaw ñu ko toggee xamuñu ko sax. Mm-hmm. mais nag àddina lu ci xew rek seen génération demee noonu yàlla na ci yàlla génne loolu. ko mm-hmm. ñu dellu cosaan. Mm-hmm. tradition ak coutume dafa baax ci réew. boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jógee woon. du dëgg parce que feebar yi bari na de. torop feebar yi daan wax ay borom barke seen tànk yi yëpp ay metti kenn xamul lu mu doon. vraiment lu mu doon. kenn xamul lu mu doon il faut changement de comportement su ci côté alimentation daal war na. Mhm. waaw seet li ngay lekk lu baax ndax nit mën naa lekk lu ñàkk fayda fekk looloo di ceebu ñebe géej ay daxit hmm? mhm. ay mbaxalu saalum moo gën benn ay hamburger ak. yooyu yooyu waaw yu nii nii yooyu. surtout léegi sax nit ñi amatuñu jot. pour toog seen kër. togg ak yooyu ci mbedd bi ñun ñëpp. ci mbedd bi boo ci lekkee da ngaa war a dox te yow da koy lekk rek bàyyi ba ñëw sa lekk ko tëdd. Mhm. yooyu da ngay waaru daal il faut ñu changer comportement waxtaan ak nit ñi te ñun loolu mooy seen taxawaay ci réew mi lépp luñ def waxtaan. informer communiquer pour qu'il y ait un changement de comportement. Mhm. boobu sax. Mhm. parce gis nañ ne daal. dëkk bi salte na. waaw ah loolu dina dégg. njiitu réew mi mu ngi ciy yooyu mais daal. am na dugal nañu ci. am na point yoo xam ne moom. maa day taale léegi nag ñun bàjjen yi rek programme boobu waxoon naa ko benn bés. na ne bu leen ci xeet xeet bàjjen yi koñ bu nekk am na bàjjen wala ñetti koñ yu ne benn bàjjen ku nekk bu balee sa kër ba mu set ñu àndandoo ku nekk bale sa kër ñëpp génnandoo bare koñ bi xaar oto mbali tuur ko àndandoo bale tali waaw dëkk bi du set. dina set eh, clinique day bi yéen gis ngeen ci seen bopp est-ce que. ban ci. bi bi paase biñ fi def. mooy biñ doon def fële. waaw biñ doon def waaw. waaw waxoon nañu ko rek wax dëgg yàlla. waxoon nañ leen ko mais ni ma ni nga waxee nekk man. Hmm. Euh, gisoo ci sa bopp. waaw parce que déjà du yow kese ah. parce que tour bi rek déjà clinique day anglais boobu ñu bëri xamuñu ko. Hmm. donc je pense que côté boobu moom état bi lajj na ci côté communication bi. waaw may man comme gis naa lu mel ne président jóg di def benn acte dama naan nag moo ko mën a def ak sama man ni mu amee kër laa ko amee. ni mu bëggee lu baax laa ko bëggee. mais mënoon nañ leen ci gën xam naa am communauté waaw parce vraiment def nañ réunion fii man boog suñu localité. direction urbanisme ñëw na wax nañ zéro déchet zéro bidon bi affaire yooyu wax nañ tamit ak ñun wax dëgg yàlla man léegi dañoo bëgg boor bii moom fii nga xam ne ne ci cinéma liberté ku fi bàjjen ñu dugal la ak délégué de quartier ñëwoon nañ sax dinañ amoon man rencontre mais dama amoon ndox li ma la waxoon démb mhm. moo tax waaw mais xam naa dinañ ci dugal te dinañ ko def au niveau national. Ah, nañ ko def de parce que. dèjà bu ñu ko defaloon bi na. rek war nañ koo changé clinique day bi xam fuñ ko jëlee waaye war nañ koo changé set la. set setal rek jeex na. Hmm. loolu la mës na fee am. niñ ko doon wax kàcce bu gën a set ñu jox la bii prix nangam xam nga euh, olof dafa bëgg rawante. Hmm, dafa bëgg rawante loolu la te dinañ ci jàppit ñun xaaruñu kenn. Hmm. ndax set gi moo fiy dindi. feebar bi mm-hmm. te ñun dañuy xeex feebar mm-hmm. sell ak sellal la ñu wax kon buñ ñu boolee dinañ dugg bu ñu boolee dinañ dugg mm-hmm. ndax ñoo jël njaboot gi waaw am na solo euh, daanaka yegsi nañ si njeexitalu émission bi euh, Adja Ndeye Fatou Diallo maam moom bégte trop di ci ànd ak yéen euh, voilà tey ji kon ngeen am motivation yoo xamante ne am ngeen ko ñu ngi leen di enrôler mhm. ci mutuelle de santé yi mhm. te loolu tam lu am solo la parce que kii jàppale nit ñi pour ñu ñu faju ak yooyu je pense que kooku mhm. la moindre des choses bu bëggee faju moom itam mu am facilité waaw loolu moom am na solo ci biir loolu nag may gërëm la direction de la santé di la directrice générale de la santé di jël nuyoo bi yëpp teg ko ci loxo ministre Abdoulaye Diouf Sarr ndax vraiment bàjjenu ko santé moo ko njëkk a intéressé mhm. waaw di gërëm nag toutes les bàjjen di def mention spéciale au président de la république ndax lu mës a am ku ko fi indi ku ne dañ koy ñaanal mhm. mu yàgg bi te wér te ñëpp jariñoo ko nag mhm. ñëpp yàlla doon seen wërsëg tous les bàjjen des quatorze régions des quarante cinq départements et des cinq cent cinquante sept communes mm-hmm. maa ngi ñëpp di leen sant di waxit ci seen tur mm-hmm. waaw di leen nuyu waa rajo bi te ko ci nga xam ne mooy sunu frère Mbadji c'est notre frère mm-hmm. sore wuñu ak Khady Sané la directrice ak yow mi ulay ndax c'est pas la première fois yàlla jàppale seen rajo bi boobu ay télévision yëpp ba ma ciy wax nag ak bàjjen yi yàlla mën na ko di wax nag Mbadji daal bàjjen yi nee nañu bëgg nañ laa allah. <laughs> ok jërëjëf vraiment tey ñuy rafetlu bu baax a baax ànd bi ñu ànd nag yow <laughs> Ndeye Fatou Diallo di njiital euh, association bi ëmb <laughs> bàjjenu gox yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag dañoo bëgg ñu ri fexe daal bañ nekk ONG bu ko defee ñu mën a euh, doxal seen bopp gën a mën a am ay initiative yoo xam ne dina lépp pour la santé et pour euh, le changement de comportement ak le développement communautaire ñu lay jaajëfal bu baax a baax encore une fois jaajëfal mbokki auditeurs yi ñu doon déglu ci la 97.5 Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig daje vendredi prochain incha allah beneen invité ak beneen thème ci Rewmi FM 97.5 ñu euh, fanaanoog jàmm. jarama yoojuwa